waaw jërëjëf Cheikh Anta yow moom yaay sama sëriñ xam nga man ak yow moom euh, taalibe ak sëriñ lay doon parce que waaw waa daalu Salaam laa te sama sëriñ sëñ Cheikh Anta Mbacke borom Daaru Salaam la moo tax fu mën a gis rek sama sëriñ laa lay woowee waaw euh, boo dëggee man a maturité bis bu nekk rek ak la cay war a xew pour gàttal wax bi rek maturité mooy nit ki dinga nga toll foo xam ne dangay am yeneen yëg-yëg yu bees loolu day nekk ci nit loolu lu nit di lëg yëgal boppam la euh, beneen bi ci topp it par rapport ak artistes yi nga xam ne bokk nañu ci disque bi nekkul ne dama soofantal sunu kilifa yi nekk ci réew mi au contraire waaye nag man je pense que nii damay représenter la musique sénégalaise bu ñu génnee sumu réew ndax tey mën naa ni waxuma ko sama bopp de waaye askan wi ñoo naan Pape yow amatoo looy prouver Sénégal ñu dem ba ni Pape Diouf est-ce que du mbalax rek la mën ci carrière am or que li nekk sama dënn bari na waaye comme que nag olof dafa ni mbay ci sa wewu tàkk mbalax lañu am. moom la ñuy porté fu nu mën a dem ci biir loolu it diwo yooyu ngay wax kilifa yooyu nga tudd yépp way no wayandoon naa ak ñoom tey ku mel ni Youssou def nañu ñaari diwo xeex si sibiru man ak moom ñoo ko woyandoo ak sama sœur Viviane ak ndem si yàlla si nday nday Mari Njaay Gawlo yàlla na ko yàlla xare aljana ak suma mag Souleymane Faye woyandoo nañu aussi yaa ko tey waaye gis nga ni ma la bëggee mu invité ma Bercy ñu woyandoo ko mu nekk lu rafet Sénégalais yëpp euh, rafetlu ko Ismaïla Lo woyandoon nañu ci benn projet boo xam ne Papis Konaté moo géré woon production bi carapide carapide point man ak moom ñu woyandoo jigéenu Ndakaaru Njaay bi nga xamante ni Mor Sow la dama def ko man ci sama répertoire Baba Maal woyandoo nañu waaye li ñu woye génnagul baakan mi moom a yóbbu këram mu dugal ma ci studio ne ma pap déglul morceau bi defal li ngi kon je pense que ni tey tuñu ténor yooyu yëpp woyandoo naa ak ñoom loolu nag dama koy sante yàlla bu baax ndax ñooñu c'est des c'est des superstars kon tey bu ñu wàccee seen bopp am modeste bu toll noonu am ci yow kóolutee wayandoo ak yow loolu sant yàlla la bon par rapport ak Universal aussi euh, sant yàlla du xëccoo non ndax man lii dama dama naan am na loo xam ne ñaanu waajur la label yu toll noonu jafe na nga liggéey un produit fini ñu accepté ko nangu ko jënd ndax bi ñuy door ñaari projet la woon Maxtaar dafa dem France pour outil partenaire boo xamante ni dañuy ubbeeku sur le plan international bi mu demee mu daje ak benn label bu ñuy wax K-Prod Caprod présenté ñu beneen label bu ñu wax Aztec ñu ñëw France toog ak ñoom waxtaan ak ñoom ñu amoon ñaari projet bi ci njëkk mooy album international beneen bi ci topp mooy organiser pour def Bercy ñoom ñu ne mën nañu def production bi mais Bercy wóoluwul Pape ndax ne nañ du dugal seen xaalis perte ndax bi ñu xaymaa Bercy bi budget bu énorme la woon donc ñun ci ndimbalu yàlla ñu ne leen bu leen neexee sax album bi ñuy def bu leen nu fay nan leen ko def wiin win andi leen arrangeur yi ñun lépp luy sarge mën nañ ko defal suñu bopp parce que nit booy boo nekkee ci liggéey gëm sa bopp gëm liggéey bi ngay def da nga war a gëm ni bu ci yàlla àndee dafa war a dox ndax loolu il foog sénégalais xam ko que ni léeg-léeg nga génne album mu neex or que daj nga ci lu metti te nag dama gëm ni balaa ngaa jariñu faw nga ñaq donc durant ces trois dernière années yooyu tout ce qui est dépense ci album bi tout ce qui est hôtel tout ce yeneen dépense yi ñun ñoo ko jëloon en charge parce que gëm nañu suñu bopp yàlla defal mu sutura ñu dugg ci projet album bi Bercy ñoom ñu ne du ñu jël risque di financer Bercy bi donc man ak suma rak Matar Diop ak suma mag Pape Bokar Diouf ñun ñoo toog waxtaan ne nan leen dem gëm yàlla waaye nag wéetuñu ci ndax ñu bari dañ ci jàpp am na ñu ci jàpp sax te bëgguñu ñu tudd seen tur am ñu ci jàppit ndax gis nañ ni que Sénégal moo xew la mais du Pape Diouf ndax ñun Sénégal lañ demoon représenté ndax loolu bu échec du Pape Diouf moo échec ndax Pape dafa dem rek uti dafa dem rek sabab la Sénégal la demoon représenté loolu jiital naa ci presse bi ndax promotion boobu presse bi liggéey nañ ci liggéey bu am solo suma xarit yi jàpp nañ ci musiciens yi may àndal ànd nañoo man ci aventure boo xamante ni aventure bu metti la woon mais nag yàlla defal nañ ci sutura ba loolu moo gën a tax bi ñu liggéey suñu album mu nekk produit fini am label yu bari yu ko bëggoon Believe Sony ak ñeneen ak ñeneen ak Trash ak ñeneen ak ñeneen mais ñun suñu maanaam bëgg-bëgg universal la woon parce que tey boo xoolee universal booy lim label yi gën a mag ci àdduna bi c'est le number one donc ñoom ci seen jëmi bopp bi ñu dégloo album bi yeggalewuñ ko ñu ne macha allah et que d'habitude buñ daan produire artiste ñoo la doon jox ñoo la jox studio boole laak ay arrangeur boole laak ay big maker gérer direction artistique bi ci ñoom ni ko bëggee ndax ñoom noonu la ñuy liggéey mais yàlla dogal na ñun dañu liggéey ba pare. jox leen bande bi ñu déglu ko bi ñu ko dégloo ñu ne ah beneen voix wu Afrique juddu na gis nañ beneen beneen vision bu bees ndax soxla nañu lool kon loolu defe naa ni du ndamu Pape Diouf mais ndamu Sénégal la ndamu Afrique la donc lii Cheikh Anta moo ma dugal Universal ma signé ak ñoom nag un contrat de trois ans di ñaan yàlla ci kattanam album bi nga xamante ni wóolu nañ ba signé ma yàlla defal ñu ci ndam. ba ñoom buñ ci am déception disque d'or disque diamant disque platine kuy liggéey rek loolu ngay ñaan yàlla waaye nag ñun loolu taxuñu jóg liggéey moo ñu tax a jóg avancement ba lu ñu ci fekk rek ñu xam ne suñu borom moom moo ñu jaarale ci yoon wi jërëjëf